gor du tappale gor du wax lu mu gëmul gor du nekk du nekk ci loo xam ne gëmu ko vraiment géejawaay moom kenn amul dara loo leen di wax ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm mouvement karimis yi di gërëm waa PDS bu baax a baax a baax a baax ndax nag it dañ ne fukki bakk bukki buñ songee gaynde gaynde ga njëkk bukki ba njëkk song moom moom ndam li ñaay bul xàll mbabal doom jaa tax comme ni ko Njóogu Malick waxee Baara

yal nañ ko fekke te tal ko woote naa ndaje mu rëy moo xam au moins bëgg naa ci 1000 à 1500 wala 2000 femmes yàlla bu taw rek ñaanal leen yàlla bu taw permanence su Dakar la ñun ñëpp fa la ñuy daje macha allah gaa yaa ngi ñu ngi joxe ay kaar lu ne ñu ngi ciy dugg kon nag man tam yéen la am géejawaay la am Medina Gunaas la am ndax foofu laa dëkk foofu la sama base ne teraanga buma am fa ko fa laa déggee maire fa laa déggee sénateur fa laa déggee macha allah macha allah mënuma koo lim. waaye rawatina département Guédiawaye gi nga xam ne fi la yàlla def sama wërsëg ndax commencé moo fee milité kon maa ngi woo jigéen ñëpp danaa jokkoo ak yéen mënaguma wax lu leer mais dinaa jokkoo ak yéen ku soxla kaar danañ la jox kaar ñun ñëpp nañ dem taxaw ñun ñëpp en masse daal dina Ablaye di jigéenu national bi yëpp a ngi di ci sa kanam région de Dakar képp nag laa convoqué ak le département de Thiès muy Mbour Tivaouane ak ak ak Tiwaawoon mom dinañ indi fukki kaar ak juróom ay wa wa waa Tëngéej ne lañ dinañ indi fukki kaar ak ñaar macha allah ak ñeneen ak ñeneen ñu manifester wu comme que nag fi la dekk suma sañon nu mu gëna yaato mu gëna rafet ndax Ablaye du xolam sedd nu de amuñu kenn ku dul Ablaye nu kenn ku dul Ablaye wad ku amlu Ablaye amul jëlal ngor gën lepp ngor mo gën lepp dignité kenn du ko jaay kenn ku nek war nga sor bu ëllëgé ak njabot dara ñu mag ñu di la ko nettal wala say sët ñu di leen ko nettal dignité ak ngor kenn du ko jaay yal na nu yàlla musal ci kuy jaay ngor tudduma kenn tudduma manque de dignité kenn mais ñun ñii fi toog jàpp naa ne bu Ablaye Wade dee kenn ñun lay àndal kon nag li ñëpp wax jeng ci la ñu wax yow ñu ngi lay gërëm bu baax ci woote bi rafet na def nga lu baax la jeunesse bas yow dama laa soxla pour fële dimanche sax noonu naa ñëwagoo donc ñu ngi gërëm mag ñi daaw de béy tonton Adama ñu ngi gërëm mag ñi di gërëm jeunesse bi parce que nag ku bëgg a sa politique il faut nga wax ak jigéen ñi il faut nga wax ak yi les femmes et les jeunes le président compte beaucoup sur vous pour accéder au pouvoir en 2024 Yalla nako yalla def ten fek côté te tal ko maa ngi leen di gërëm di leen sante. di gërëm wa gunas gep wa gunas ana ngeen maa leen di gërëm di leen sante bu baakha baakha baakha baax a baax seen liggéey rafet na jërë ngeen